gis nañ suñu ñaari responsable muy le président Macky Sall muy le président Idrissa sec ñu joxante loxo joxante loxo bi nag xëy na mi ngi soqeekoo ci mbas mi parce que comme niñ ko xamee mbas mi épargné wul benn dëkk ñépp ñoo subir les conséquences u njeexitalu mbas mi ba tax nag président de la république en bon patriote mu tàllal loxo toutes les forces vives de la nation président Idrissa Seck yemul ci wuyu ji mu dem wuyu ji accepter ànd ak moom pour l'intérêt suprême de la nation donc ñun du ñu def lu dul saluer loolu parce que kat mën nañ ne ñoom ñaar ñëpp ce sont de grands hommes donc nekk nañ suñu fierté ci loolu nag ñu ne ñun enseignants yi waruñoo des en reste parce que un responsable dañ koy jàppale nuñ koy jàppale su ne xool leen fii ñu xool foofu moo tax ñun bi ñu gisee ñoom ñu créer seen link ñu ne pourquoi pas ñu matérialiser ko à la base parce que jàppale sa responsable mooy fam la jaarloo nga jaar fa te comme ñoom dañoo ànd donc ñun au niveau de la base dañoo war a ànd parce que nekkul ne sax dañuy ànd parce que xam nañ au fond la leen boole mais dañoo war a ànd parce que même ci kër sax souvent di nga gis ñu jël fa décision yoo xam ne njaboot gi duñ ko maîtriser décision yi kilifa yaa koy jël kon nag ñun bu ñu nekkee dañuy nekk njaboot bu discipliné suñuy kilifa jël nañ décision donc ñun dañuy ranger wu derrière seen décision kon moo waral tey ñu accepter ànd pour désormais ñuy xàccandoo di doorandoo ànd bi ñu ànd nag mën nañ ne lii tey commencement la parce que wañ ñi boo gis rek ci benn lay commencer donc commencement bi mooy enseignant APR ak enseignant réew mi daje nañ tey pour wane ne dañuy dox dem ànd mais ça ne veut pas dire que dañ koy yemale ci enseignant APR enseignant réew mi lu tax ñu commencé ko ni c'est parce que yàlla dafa def structure réseau des enseignants existé ba pare structure maire mouvement des enseignants réew mi existé ba pare donc pour ñu ànd day yomb bu fekkoon ne structure enseignant bennoo am na kon dañuy ñëw ci cadre benno enseignant ànd ak ñoom mais comme loolu amagul moo tax ñu àndeek ñoom ci enseignant APR ak enseignant réew mi mais objectif bi nekkul ñu yemale ko ci parce que bu ko ci yemalee sax xëy na euh, na mu war a amee portée du ko am parce que yaakaar naa heure bi nekkatul APR réew mi dafa nekk la grande majorité présidentielle te on ne pas dire la majorité présidentielle mu yem ci APR ak réew mi donc c'est le moment de dire que ñi ngi lancer appel tous les enseignants de la mouvence fu ñu mënti di bokk tàllal nañ leen loxo wan leen ne lii ñu teg tey commencement kese la mais li ñu bëgg mooy ñoom ñëpp ñu ñëw ànd ak ñoom te loolu nag dinañ ci dox dinañ ci wax dinañ ànd jóg dem seeti obédience yi fi nekk yëpp te bokk ci mouvance bi su ko defee ñu joxante loxo parce que nag olof day wax naan ay sànq lañ bu ñu dajaloo sax mën a diri weer donc yaakaar naa ne enseignant Thiès yi bu ñu dajaloo dinañ mën a marqué seen empreinte ci politique gu Thiès marqué ko sax ci politique gu Sénégal parce que l' enseignant du n'importe qui donc ci loolu daal maa ngi waxaat une fois encore que suñu loxo. tàllal nañ ko ñëpp tàllal nañ ko ñëpp di ko déggal aussi suñu responsable yi fi nekk particulièrement doyen Brin parce que am na taxawaay ci bennoo bi que ni ñun bu ñu sañoon enseignant bennoo yëpp ñu ànd def benn dànk parce que kat Thiès dama naan opposition amatu fi lu tax opposition amatu fi Thiès toujours réew mi moo ko daan gañe APR benno bokk yaakaar topp ci léegi tey bu ñu toogee réew mi ñëw Benno Bokk Yaakaar ñëw kon nag li ci des mooy ñu ànd rek pour nangu Thiès. je pense que Thiès dafa war a nekkat le locomotive li nga xamante ni am na au plus haut sommet te mu rafet lool mati ñu ngi leen di encourager vous les enseignants mais je veux dire Dieu est juste dafa mel ni lii enseignant rek moo ko mënoon a dox parce que pendant ce temps que mais un enseignant organique comme di Gramsci un enseignant organique enseignant créé à la main dem ñibbi sa kër rek baax na mais enseignant mooy kii et am na lu yàlla nam ba nga xamante ni jàngalekat moo ko dox et c'est avec beaucoup plaisir la ñu toog fii mais may wax rek ni am na ñu bari ñi nga xamante ni àndu président Macky Sall ak bi président ubbee dialogue il se posait la question mais lu ñuy dialogue dara xewul je dis aux gens mais mais lan moo mais ñun est-ce que ay nit la lañu parce que en Afrique ya y a deux exemples de dialogue Il y a l'exemple Macky Sall et Idriss Seck. Il y a l'exemple Alassane Ouattara, Bédié. Il y benn exemple dialogue bi nga xamante ne ak ànd bi nga xamante ne dañ ko ànd te xeex amul deret tuuruwul jëmuñu ci ay élection yi nga xamante ni calcul yi day bari maanaam je veux dire biñ koy def parce que fekk nañu sori ay élection boobu mooy exemple Sénégal ñu am bu Côte d'Ivoire bi nga xamante ni dama ci fekkee parce que am na lu bari li nga xamante ni dox nañ ci biñ leen di wax ànd leen wax leen dégguñu woon il a fallu qu'il ait cent deux morts après une élection pour ni ñi toog wax est-ce que Sénégal dañu bëggoon ñiy wax ni warul président Macky Sall warul woon dialoguer warul woon wax warul woon tàllal loxoom Idriss Seck est-ce que dañu président Idriss sec est-ce que dañu waroon a bàyyi ba mu am ay morts yu bari ñu soog a waxtaan je ne le pense pas Je pense donc que le président Macky Sall a fait preuve d'une générosité exceptionnelle. Il a fait preuve d'une grandeur sans commune mesure et il a été pragmatique dans la gestion du pays. Et en face de lui, il a eu un frère avec qui il a eu une histoire et que le président Idriss Seck aussi wane responsabilité, wane courage, wane réalisme. Donc l'un a fait preuve de générosité, de grandeur et de pragmatisme. L'autre a fait preuve de responsabilité, de courage et de réalisme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que li am ñu ne rafet na bu amul woon mu ñaaw dañu war a comprendre ni aussi que li ñu wër en Afrique te bari ay coow tey fépp dama wax ni. boo gisee toujours Afrique coow di am dëkk yi tàkk yépp mooy dëkk yi nga xamante ni ñi gérer pouvoir bi ak ñi gérer ki nga xamante ni moo gën a significatif ci opposition bi ëpp ci maturité il n'y a pas c'est-à-dire quand on parle de l'opposition sénégalaise il y a l'opposition du bruit y a mais je veux dire que opposition sénégalaise c'est symbolisé en termes en tout cas ba bi ñuy jóge ci élection yi par le président de Rewmi le président Idriss Seck. Donc je pense que quand il a fait ce choix, en répondant à l'appel du président de la République, Macky Sall, je pense qu'il a posé un acte historique. loolu dañ ko war a saaw dañ ko war a rafetlu. ñun waa réew mi discipline de parti la ñu xam suñu responsable nee na lii ñun ñëpp loolu la su la naqaree loolu la discipline de parti. tey dañu doon ñaan yàlla lii am APR mouvement présidentiel benn bokk yaakaar ak réew mi ànd c'est dans l'intérêt du pays ndax idi su ko ki tàllalee loxo bu dem wuy ji ko du question ambition personnelle au dafa réew mi ko réew mi la gëm Macky mi ñu ànd pour liggéeyam liggéey réew kon ñun ñi nga xam ne ñooy base bi ñun dañuy war a soutenir wala nous sommes à cent pour cent avec eux mais ñoom ñoo ñu jiit fi mu ne dañoo raw lu bari Thiès président ñoom euh, les responsables raw nañu lu bari ndax Thiès boobu ba tey dafa na tekk c'est pas normal c'est pas normal tey ñoom ba ñu déclenché rek ñun une semaine un mois waroon na Thiès waroon na wane boppam yàlla moo ko def moo ñu boole xëy na ku ne amoon nga obédience boo toppoon mais tey yàlla boole lépp. comme man ce que je peux vous dire c'est de vous dire merci ndax déclic bii ngen def. lii ngeen def ce soir c'est un pas en avant vers ce que nous souhaitons l'unité organique de Benno à mhm. tous les détails li ñu bëgg a def yëpp Mati wax na ko les projets ñëpp bokk ñu mën a gànjamaa gar am ouverture ñu mën a gar euh, gagner largement la ville vous êtes des enseignants par fonction mais vous êtes des éducateurs par mission Votre fonction, c'est l'enseignement. Mais votre mission, c'est l'éducation. Donc, euh, ce... vous ne pouvez pas vous partager entre politique et enseignant aussi. Parce que Gramsci doon na wax benn intellectuel italien que le rôle de l'intellectuel mooy intellectuel organique mooy ngeen tey organique qui organise qui est en lien avec le peuple politicien ngeen parce que dañuy tuutal politicien Mais l'homme politique organise le collectif. Mmh. Le rôle du politique, c'est d'organiser le collectif. nga fekk benn groupe ay groupe mu nekk benn cité nga fekk nation nation mu nga def ko état mais loolu politique moo koy def ci la république kooku donc kenn mënul fay politicien mhm. avancé man de ce soir je suis rassuré yal na yàlla mucc ak ndam yal na yàlla mucc ak ndam je me réjouis fortement de dans un passé récent politiques ont essayé pour avoir cette rencontre. Il y avait les plénipotentiaires de la coalition Benno Bokk Yakaar et ceux de Rewmi. Nous avons essayé de jeter les bases d'une collaboration politique, mais la mayonnaise tarde à prendre. <laughs> Et je pense qu'aujourd'hui, cette rencontre, cette retrouvaille entre APR et Rewmi va aussi accélérer les choses. Euh, parce que je suis convaincu, et vous conviendrez avec moi, que cette majorité présidentielle au sommet, pour qu'elle soit une réalité, il faudrait quand même que les bases, les localités se l'approprient. Sinon, c'est euh, un vain concept. Et cette majorité, c'est un, gaz d'instabilité politique pour ces pays-là. C'est vrai, on me la politique n'est pas de mais le seul baromètre qui nous la représentativité d'une coalition ou bien d'un parti, c'est les élections. Et l'élection présidentielle, si nous scrutons les résultats de l'élection présidentielle passée, la majorité présidentielle actuelle, sur les 552 communes, les sont avec la majorité présidentielle avec plus de cinquante pour cent il y a que trente communes qui échappent à la majorité présidentielle et ces trente communes se trouvent dans le sud c'est dans le département de Oussouye dans le département de Bignona et dans le département de Ziguinchor mais hormis ces trente communes dans le sud les cinq cent vingt-deux autres communes la majorité présidentielle les gagne à plus de cinquante pour cent C'est vrai que les élections locales, c'est une, c'est pas aussi l'élection présidentielle. Mais pour vous dire, aujourd'hui, cette majorité confortable qui est là. Et si nous prenons même les départements, sur les 45 départements, aujourd'hui, les, parce qu'aujourd'hui, nous, nous, nous, allons passer de 45 à 46 avec l'élection du département de Kermassar. Donc sur les 46 départements, la majorité gagne les 43 départements. Comme Tchaouli Diana. Maintenant, il faudrait quand même qu'on réussisse, hein, que, dans la majorité présidentielle, au moins qu'on mette en avant l'esprit de solidarité, de générosité. Parce que l'autre, moi, nous sauver. Et qu'on taise nos égaux et nos ambitions. Parce que c'est ça aussi. Il, il est bon d'avoir une ambition, mais parfois, c'est le contexte qui vous impose quand même de faire violence sur soi et de voir la réalité d'en face pour réussir. Donc franchement, je ne pouvais pas ne pas être là pour vous encourager, parce que nous sommes aussi enseignants. Nous, enseignants de Thiès, membres du mouvement des enseignants de Réumi et du réseau des enseignants républicains, deux structures respectives du Réumi et de l'APR, avons choisi de conjuguer nos actions dans une dynamique unitaire dans le but de donner corps à l'alliance scellée entre nos deux leaders, à savoir son Excellence le Président Macky Sall et le Président du Conseil économique, social et environnemental, M. Idriss Seck. Cette décision prise en toute souveraineté par les dirigeants de nos deux formations politiques témoigne d'une parfaite entente fraternelle, mais aussi d'une volonté réelle de créer une synergie d'action pour la relance de l'économie sénégalaise et de maintenir notre pays sur les rampes de l'émergence. Nous, enseignants de Réumi et de la l'APR, avons décidé de transcender les clivages, de consommer ces retrouvailles et de les matérialiser par des actions communes concertées C'est là tout le sens de cette manifestation qui nous réunit aujourd'hui.